beneen actu du jour ami internet yu 24 actu yu bàkk ba jibatina la ñuy waxtaane tey mu di démb ci alxames ji ci visite bi njiitum réewum Sénégal doon def jëme ko ci quartier yi nga xamante ni ñoom la mën mi soxal fële nag ca diwaanu Kër Masaar askan wa yeewoo nag ca gox boobule daal di nañuy mer ba futtu daal di koy jëmale ci ki nga xamante nii moo di Moustapha Meng di meeru Kër Masaar askan wa nag nee nañ na fi jógee ndaxte faalewu leen yëgu leen bi amee ba léegi gis benn yoon mu daal di cay yëy ne njiitum réewum Sénégal na xam ne lii di politique ndax ñoom ah, dañoo ñàkk seen matériel te gox boobu lee amul benn yoon sécurité ndax te courant ba doyul dara doyu fa ñu wax ne nag ki nga xamante ni ni nag mooy di seen maire di Moustapha Mbengue liggéeyul benn yoon dañoo bëgg rek mu Moustapha Mbengue daal di jógee ca gox boobule ah, di Kër Massar ndax liggéeyul benn yoon ndax ki nga xamante ni nag moo di Moustapha Mbengue démb ay garde corps ñoo ko fa mu daal di mujjee jëlee ndax askan wa dañ ko sëqatal daal di koy sonal lool ngir bëgg rek mu daal di jóge fa ndax bëgguñu koo gis benn yoon ngir négliger gi nga xamante ne nii moom Moustapha Mbengue daal dina koy négliger askan wa yeewoo ca diwaanu ak uh, Kër Massar ñu daal di wax ci leneen gis naka benn clash bu metti bu amoon ci diggante Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko ñu gis ne naka boobee ba léegi ku nekk nga ci yëy yàbbi ba ki nga xamante ni moo di Mame Gor Diazaka daal dina ci yëkkati nag ay kàddu ngir di wax ne diggante Bougane Gueye Dany ak Ousmane Sonko du match ndax nee na Sonko amulul njariñ sénégalais yi nee na ndax mësul dimbali benn sénégalais ci malheuru sénégal yi rek lay profito ngir di ci am tuux nee na tamit du ma sa nekk li nga xamante nii moo di chef de quartier sax waxuma laa nag muy nekk ah, président nee na Ousmane Sonko lenn soxla ko lu dul dafa bëgg taal li nga xamante ni nii moo di Sénégal te nee na moom Mame Gor Diazaka du ko ci bàyyi mu nekk ay kàddu yu ñagas yoo xamante ni ah, kii di Mame Gor Diazaka daal dina koy yëkkati jëmee ko ci leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko ñu daal di wax ci leneen muy beneen naqar bu wàccaat ca région bu Kaffrine Mariama wilaan am lu toll si ñaar fukki at ak juróom nekkoon Dakar naka ci wetu jëkkëram moo daal di ñàkk bakkanam ci ab arrêt cardiaque ginnaaw bi mu yëgee wàccu liggéeyu sëriñam bii di Cheikh Abdoulaye a ndaw si mu ngi dëkkoon ci village bu ñuy wax Mbene Juma bokk ci commune Kacoot dëddu àdduna bàyyi fi nag jëkkëram ak ñaari doomam ñu di ko jaale famille yëpp te di ko ñaanal suuf oyof si kawam diwaanu Médina tentative d'assassinat ca cimetière abattoir bu Médina ca Conus Ouest Ndeye M Thiam benn dame bu divorcé nekkit ex membre d'un gang d'agresseur moo doon déem a rey doomam bu jigéen bu am lu toll ci benn at bi ay une heure du matin jotee waaye mujjeewul antu ndax dañ ko daal di gis ku dëkk nag ca côté boobule moo ko daal di gis muy def bile mbir ki def yëf nag ay atam mi ngi toll si ñaar fukki at ak juróom-ñeent yoon teg na ko loxo ba daal di koy defee rek ñu daal di bàyyi rek mu def liggéeyam ba lépp loo xamante ne nii ruusandiwaat na ko jëm ci moomu le mbir 24 actu dina leen ko toppal ba xam fan la wànnent du mujjee ku gëtëm. ñu jeexale kooku affaire maraboutage ay nen yu ñu xaatim daal di koy teg ci buntu kër Ouzin Keita moom Ouzin Keita nag bi mu ko gisee dafa daal di woo ki nga xamante ni moo di Pawlish daal di ko koy jiiñ ne moo ko def mu mel ne nekkul loo xamante ni lu bees la mu di ay coow ak ay xuloo yu ñu nemmeeku ci diggante ñaar ñooñu leen di Ouzin Keita ak Pawlish lii rek moo furu seen di woon amee internet yi dig dajalay doon ba ëllëg ak jàmm.